asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki m Group Nourou Darayni bokki taalibe bokki jullit yi ginnaaw bu nu sante suñu Boroom tabaraka wa taala julli ci yonentam bu tedd bi alayhi wa alihi wa sallama dellu santa Seexuna Alxadim di ñaan suñu Boroom wa taala fayal nu noo ngi fas yéene dikkaat insha ci sunu jataayu jigéen ñi sunu émission Zaadu Nisa mooy jataay boo xam ne noo koy amale fii ci ëttu M Media Group Nourou Darayni doon jataay boo xam ne jataayu laayanti biir la waaye jataayu fàttalante la mu mel ni sunu jataay yi nga xam ne moo paase noo ngeen a yéen ci téereb Sëriñ tubaab bi tudd wasiyatu soxna Penda Jóob ndénkaan yi nga xam ne moom la ci sëriñ bi doon dénk soxna si noo ngi ñëwoon ba ci àgg ci duumi alal xumuuli wa tasaturi wal tux fi di sawtaki tekki tushkari mu mel ni dikku nañ ci ni sëriñ bi dénkee soxna Penda Jóob ne ko del sax ci di nëbbutu waaye nag del su tuwal sa bopp waaye nag del suufeel sa kàddu ñu méngileen ko ak aay boobu suñ boroom di wax ci alquran wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wax soxnaa yonent bi sallallahu alayhi wa alihi waaye sax yi mut ca soxna yonent bi rek mën naa àgg ba ci mboolem jullit ñi na ngeen di toog seen kër te bu leen di génn benn génn boo xam ne yitte taxut bu yitte tax itam na ngeen génn ni jigéenu jullit war a génn waaye bu leen génn rek ngir feeñal seen taar wala ngir kooko réewu wala ngir leneen comme ni nga xam ne noonu la ko jigéen ñi daan def laata lislaam di ñëw ñu waxoon ne mën naa yaatu lool ci tabarruj waawat na sunu jamono ji nga xam ne ci lan tollu nga xam ne li ëpp ci jigéen ñi feeñ lañu gën a bëgg te feeñ wañuy feeñ safaanoo ak na ko lislaam bëgg li ëpp ci jigéen ñi génn lañu bëgg te génn ga génn li ëpp ci li ñuy génn safaanoo ak ni ko lislaam digle waxoon nañ ne lislaam du tënk jigéen rekk ci kër gi ne ko toogal waroo génn doxi sax soxla bu amee soxla bu ñor waaye déedéet jigéen sañ naa génn waaye nag buy génn ak la tax muy génn ak na muy génne bu fekkee ne la tax muy génn xool na ko ba lislaam gërëm ko na muy génn itam xool na ko ba lislaam gërëm ko su booba kenn du ko tere mu génn ay su loolu mënta am rek su boobaa waxarna fi buyuti kunna wala duumi alal xumuuli waaye ñu àgg ba ci jamono joo xam ne jigéen ñi dañuy génn mën na ne sax xañ na raw na génnin wa nga xam ne laata lislaam daan génn noonu la ko ñooy doon génne jigéen di génn ci ak raflewu comme ni nga xam ne noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxe woon ñu andi woon ci ci xadis bi ci jataay bi passé wax ne ñaara ngi ñoo xam ne euh, fekkantewuñu jamono mooy lan nisaa'un kaasiyaatun aariyaat mumilaatun mailaat ru'usahunna ka asnimatil buxti mooy jigéen ñi nga xam ne dañuy solu ba pare raflewu waxu nan ko jigéen bu solee lu seer te aw yaramam nekk ci biti mu yaraax wala mu xat wala mu gàtt dafa solu ba pare raflewu jigéen itam bu solee lu seer te daf ko sol ba pare ab dënnam nekk ci biti wala ginnaawam nekk ci biti wala boppam nekk ci biti wala sax ay yeelam nekk ci biti dafa solu ba pare raflewu ñu àgg ba ci jamono joo xam ne dañoo waxoon jigéen buy sol loo xam ne lu rafet la wala lu taaru la ka tax muy sol ko na war a nekk boroom këram wala mu nekk koo xam ne ku mu xaraamanteel la waaye du ko génn du ko sol mukk génn di dox ci ñoo xam ne ay jàmbur lan yoo xam ne jàmbur lan ci ñoom jigéen àgg ba ci foofu jigéen sol sol sol sol gu doy waar sol gu xat te soliku lu dul ngir bëgg àddina gis ko jigéen sol loo gàtt wala mu yaraax soliku lu dul bëgg àddina gis ko donte danga koy sol sax te génnoo sa kër danga ko jaarale ci jumtuwaay yoo xam ne mën na ne dina wër àddina la ko waral loolu lépp di dugg ci kaasiyaatun aariyaat day dugg day dugg itam ci duumi alal xumuuli jigéen bu fekkee ne dégg na dëgg dëgg li Sëriñ Tuubaa wax duumi alal xumuuli jigéen du solu ngir jaayu ngir dugal ko ci ay barab yoo xam ne day bëgg àddina gis ko su fekkee ne dëgg dëgg dégg na la Sëriñ Tuubaa wax duumi alal xumuuli jigéen du sol mukk lu yaraax wala lu xat wala loo xam ne lu lislaam gërëmut la ak donte bu toogee këram kenn du ko gis ku dut këram waaye mu dugal ko ci ay barab yoo xam ne àddina bépp dañ koy gis loolu dafa déggut ci duum yi alal xumuuli ñu àgg ba ci jamono joo xam ne lenn ci doomu aadama yi rawatina jigéen ñi danoo xeeb seen bopp waaye xeeb ñi nga xam ne noonu la noonu la leen suñu borom subhanahu wa taala binde suñu borom binde jigéen mu amee karaw gu gàtt mu xeeb karaw ga jël geneen karaw yokk ca karaw ga waaye suñu borom binde jigéen mu am ay xef nanga xam ne noonu la soobe suñu borom tabaraka wa taala jigéen xeeb xef yooyu jël yeneeni xef yokku ca eh, suñu sàkk jigéen mu nekk nit ku ñuul jigéen xeeb ñuulaayum boobee jàpp ne ndax ak matit la wala ak ndofe la wala ak dese la mu jël beneen produit ngir soppi yaram boobee bunu te nu xel ci ne Sëriñ Tuubaa waxoon na ne walaysa yujibu sawadul jismi sabahatal fata wasu al yow nit ku ñuul na nga xam ne sa der bu ñuul bii nga xam ne moom la la suñu borom defal ne na der bu ñuul bi tëxut nga dese wala nga ñàkk amuk digg déedéet man nga am der bu ñuul gën a ñor gën a ko am der bu weex man nga am der bu ñuul gën a yewu gën a ñor gën a gën a ëpp xam-xam ëpp ak ragal yàlla ci ku amee der bu yeex der bu weex ndax is akramul ibadi inda allahi aktharuhum taqwa bila siwa ki nga xam ne dafa dafa weexu ab ab deram dafa weex te amul ak ragal yàlla ki ab deram ñuul tam am ak ragal yàlla kookaa ko gën ki nga xam ne kawaram dafa gudd te amul ak ragal yàlla ki kawaram gàtt te mu amul ragal yàlla kookaa ko gën ki nga xam ne ay xefam dafa gàtt te amul dafa gudd te amul ak ragal yàlla ki ay xefam gàtt te mu am ak ragal yàlla kooku muy gën inna akramakum indallahi atqaakum is akramu al-ibaadi inna allahi aktharuhum taqwa bil ishtibah waaye leen ci jigéen ñi xeeb melakaan wu nga xam ne moom la leen suñu borom subhanahu wa taala bindee jigéen di yokk ay xefam jigéen di yokk karawam jigéen di soppi ab daram jigéen di sol lu xat di sol lu yaraax di sol lu gàtt te lu lépp nekk melakaan yoo xam ne suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko xaraamal ci jigéen ak ba ci ni nga xam ne noonu la suñu borom sàkke ñenn ñi wuutale leen ñi mu sàkk leen ñi am li ñuy tudde zakar yàlla ñi mu sàkk leen amunu ko ña xam ne amunu ko ñoom xeeb melokaan waleen suñu borom binde ba dem tax ñu yett si bëñ ne dañuy def zakar yàlla nekk lu xaraam waxoon ko ci jataay bi nga xam ne moo paase indi woon nan xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne laana allahu waashimaat wal mustawshimaat wan naamisaat wal mutanammisaat wal mutafallijaat li xusni bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa wax ne suñu borom tabaraka wa taala rëbb na ñi nga xam ne dañuy jël seeni yaram di ko rëdd li ñuy tuddee ay njocc waaye dañuy jël seen seeni bëñ di ko yatt di ci def li ñuy tuddee zakar yàlla waaye su borom rëbb ne ñi nga xam ne dañuy wat seen karaw seen karaw yi jë wala karaw yi nga xam ne suñ borom subhanahu wa taala digalu leen ñu wat ko léegi àgg nañ ba ci loolu nga xam ne jigéen moom baaxuwul di watu lislaam sax nag mooy ku mu watu loolu ni dafa am darura ju tax mu sañ a watu jigéen àgg ba ci loolu amul benn lor bu ko tax watu mu wat boppam ba mu set wala mu wat boppam ba karaw ba karawam ba karawam wàññu nga xam ne jigéen moom donte dafa wat karaw ba pare sax musuru te amul benn lor dañ koy wax ne ko jigéen wër te wat karawam saay bu àggee ba ci nekk koo xam ne ku mesure la ku nu togg jëf la ba am te amul lenn ngant jigéen du wat karawam waaye jigéen amul lenn ngant lu du lenn ngant wat karawam la tax mu wat karaw ga ngir bëgg àddina gis ko wala ngir bëgg ab taar mu wat karaw ga yimul ca wat karaw ga waaye def bopp mu neen yimul ci def bopp mu neen waaye toog ci ak njëmmiir goo xam ne àddina bépp dañ koy gis waaye yimu ci moo jël leneen loo xam ne eh, xam ne beneen matière def ko ca bopp ba karaw ga soppeeku lépp rek liñ ci jul mooy taaru te gis ne kon jamono moom àgg na ci njobbaxtalub àgg na ci njobbaxtalub njobbaxtalub yàqu mën ko fekk fekkee mën nañ ko waxe noonu loolu lépp ci lenn ci sunu bokki jigéen te jigéen teraloon lislaam lool te lislaam teraloon jigéen lool ba am ay barab yu bare bare bare bare bare yoo xam ne dafa am lus ku fa beral loo xam ne moom jigéen rekk moo ko jagoo waaye keneen fekku ca waaye jigéen topp àddina topp bakkan topp seytaane waaye topp mariirandoo bëgg ab taarub àddina te ab taar moom mooy digg digg digg taar ci nit ki mooy nga am ab taaru ci xol mooy nga am taaru jikko jikko bu taaroo rek sa lépp taaru na waaye jikko bu taaroo sa lépp sa dar de taar bu nu xoolee ci soxna si nga xam ne ak màggalam moom la ñuy waajal te mooy soxna maam Jaara Buso jigéen ñépp war nañu roy ci moom ndax soxna la soo xam ne waxoon nañ ko ci waxoon nañ ko ci ay jataay ci ginnaaw ku neex a waxtaane la waaye ku naqaree waxtaan la masalan ku neex xam la waaye ku naqaree xam la ndax bu ne ku xam mooy koo xam ne dafa bokk ci niti yàlla yi tabaraka wa taala te nitu yàlla waxoon nan ne sëñ Tuubaa noon na xam xam yàlla moo gën a yomb xam nitu yàlla waaye nekk koo xam ne ku neex a xam la ci mooy lan mooy wépp melokaan woo gis alquran tagge jigéen soo neexee rangal ko soxna maam jaara buso wépp melokaan woo xam ne gis nga ne alquran ŋàññi na ci jigéen bu la neexee soril ko lool soxna maam jaara buso jigéen ñëpp war nañu roy ci moom ci moom jikkoom ju tedd ak ragal yàllaam ak xam-xamam ak mën a yar doomu aadama te fan wi gàtt lool waaye nag gudd lool ndax fan wu gudd bu ñu ko waxee dëgg dëgg dëgg mooy koo xam ne ay ay fanam dafa gàtt lool waaye ay jëfam rafet àddina bépp kenn réeratu ko ay bu ñu waxee fan wu gudd fan wu gàtt mooy koo xam ne lu sëg dund yàgg yàgg yàgg te sëg dund amul solo boo ne ginnaaw rek ñu fàttala yow kooku yooyu ki gàtt fan gis ne soxna jaara li fan wi di gàtt gàtt liggéey na ci àddina liggéey boo xam ne man duutut duututut fay ba kere suñ boom subhanahu wa taala di lam dindam bi kon jigéen ñëpp doon na am solo ci ñu roy soxna jaara soxna maam jaara buso ci ay melokaanam ci ay jëfam ay jikkoom ak ni nga xam ne noonu la góorgóorloo ci digganteem ak ab sëriñam waaye digganteem ak ay ay ay bokki bokki dëkkaaleem ci rafetal digg digg rafetal waaye muñ digg digg muñ waaye xam yàlla digg digg xam yàlla waaye di ko topp zahiran wa batinan kon jigéen ñëpp seen roy waaye yu gën a màgg mën bu fekkee ne ci sunu réew mi nekk amul ci ci jiitu soxna jaara buso képp ku ko roy rek da nga roy ko xam ne awul ca tànk ya nga aw kon mbokk yi bu leen di fàtte kon ba tey noo ngi ci duumi alal xumuli watasaturi wal tux fi di sawtaki dëhran tushkari insha allahu taala dañuy taxalu foofu kon tey bu ci beneen tomb di ñaan suñu borom subhanahu wa